asalaamaaleykum mbokk yi benn waxtu ci euh, télévision Futur Média xibaaru digg bëccëg yi euh, fële ca Touba ñetti mag ak rakk ñoom ñoo ñàkk seen bakken ci benn euh, lakk ñaari mag rakk yu góor yi tolloon ci ñeent ak juróomi at démb la ñu faatu ka ca des di ku jigéen ki moom nag tey jile la mujjee ñàkk bakkenam ci hôpital Matlaboul Fawzeyni ba ñu ko rawale woon police ubbi na ci ab enquête ca ndar Guet Ndar ca boppam foofee yàqu-yàqu yi bëri na loolu ginnaaw ga fa démb diggante nappkat yi ak takk der yi ay woto ay gaal ak matériel bu ñu lakk ba ñu jeex tàkk yenn ci ay bërëb sax ñu saax saaxee ko dinañ ci dellu si ci kanam tuuti ak Ousseynou Diop beneen ponk ci xibaar yi mbootaay bi ëmb waajuru ndongo yi nekk fële ca Wuhan nekk ca Chine te coronavirus ba am fa ñoom li ñu bëgg mooy ñu indiwaatal leen seeni doom ci nu mu gën a gaawee ñu ngi doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi sànq di naqarlu kàddu yi njiitu réew mi Macky Sall mënatul mënagul a def lu ni mel eh, ci jamono jooje it ministère de la santé ak secrétariat d'état bi ñu dénk sénégalais yi nekk biti réew eh, doon jàkkaarloog taskatu xabaar yi ab plan d'urgence la ñu door démb fële ca place de l'indépendance mu di ab pàcc bu bees ci liggéey bi ñu door fexe ba ndakaaru set jëwrin bi ñu dénk wàllum cat googu lay di Abdou Karim Fofana demoon na fa ànd ak juróomi téeméer ak lu ëpp ci ay agent nee na lu yàggul dara dinañ fi taxawal benn brigade ngir muy topp liggéey boobu lee football fitna gi ñu nemmeeku dimaas gi la weesu diggante Casa Sport ak euh, AS Pikine ci Alassane ci stade Alassane Djigo ak jiite benn club ba di Casa Sport nag ne ñëpp ànd ak dal. def nañ tamit ab gëstu laajte ñi yëngatu ci wàllum football boobulee lan moo waral yenn say stade yi ñu fay nemmeeku ñàkku kaaraange loolee lépp tënk la mbokk yi nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi dañ koy dooree mbir mu tiis xew ca Touba démb benn lakk bu méttee métti ci benn kër ba ñetti tuut tànk faatu ca ñoom ñëpp ay mag ak rakk lañu ñaar ñi ay góor lañu kenn ki euh, jigéen la ñaar ñi sax ay seex lañu ñu ne ba léegi xamuñu euh, lan moo waral euh, lakk boobu boobule police ubbi na ci ab l'enquête dañuy dem ba Touba fekk ji fa Mouhamed Jo Diop Samb muy ab lakk bu métti boo xam ne ñaari nit ñàkk nañ ci seen bakkan muy ñaari tuut tànk yoo xam ne ñeent ak juróomi at lañu am ca quartier Daaru Marnaan ci diwaan bu Touba. am na ñetteel nit koo xam ne am na ci ay gaañu gaañu yu méttee métti ba jamono ji ñoo ngi ko rawale ci hôpital Matlaboul Fawzeyni. damaa nekk sama place ba ci àgg rek ñu woo ma ne ma daw si kër Omar ñoo ngi woo Omar ba léegi mënuñu koo jot këram gi dafa lakk dafi am te il paraît am na fi sa ñaare jarbaat yu fi yu ci yu ci gaañu daal jàppoon naa sax doonul ay cas yu grave man leen grave ma noo nes tuuti ma ma woote waat ñun ma. am na ci ñaar ñu faatu ma daal di ñëw booba léegi ñu ngi woo Omar mais mënuñu ko jot après ma ñëwee xool leen mënuma leen a xàmme ñu lakk ba ñor nii xaw ma ci kan la ci daal ñaar am naa ci ñaar ñoo xam daal moom lakk nañ ba faatu koo xamante ni ma nga ñu yóbbu hôpital benn xale bu ndaw li waral lakk-lakk bi nag jamono ji xamaguñ ko yaakaar nañ ne enquête bu police bu janatuma waa ubbi dina ko leeral bu baax a baax ñu xamu xaw ma ko nag xaw ma ko lakk de mais ci kaw mat laa daal lañ leen fekk ñu ñu ñu ñu lakk te mat laa moom daal lañ ci couloir bi lañ waaw ci couloir bi noonu lañ lañ toogoon noonu mais kenn nekku fi seen yaay nekku fi seen maam rek moo fi nekkoon euh, seen papa nekku fi seen yaay nekku fi bi mu déggee ñu ñuy yuuxu nag la daal di ñëw xool daal di soo dama xool kii kii ne nee na soo da ne ko dama ah ñii koy jooyu ñu dañoo dee fi ne nii Daaru Marnaan nekk ci njàq di ñaari ca gett metti woon na lool diggante nappkat yi ak der Mauritanie jox bëri na lu ñu yàq sax saxi ay diwaan ni benn agence bu Sénélec ak bu makkan bu OMVS ak jërëjëf soxna xam nga ni démb moom heure bii ci fii ci diwaaru Ndar moom fon na loo xamante ni lu metti la ndaxte jafe-jafe amoon na fi ci diggante way ñi ci ci kaw force de l'ordre yi ñu ci kaw mu Moustapha ànd ak ñi nga xamante ni ñooy ñi ñu àndal ci wàllu liggéey bi ak seen ay oto bi wax ak xam ne dañuy suuf jàkkaarloo boo xamante dégg fi mooy xam nga Senelec moom dañu ko taal euh, dañu dañu dañ ko saccagé lépp loo xamante ni vitre la woon dañ ko fa daal di yàq hôpital régional bu Ndar itam am na ay oto yoo xamante ni dañ ko yàq foofu ci biir jamono ji ñuy wax ak yow léegi léegi nii rek ñoom la ñu jàkkaarloo ak taskatu xibaar lu ñaa taskatu xibaar yi ñaawlu li nga xamante ni moom ci foofee ci hôpital régional bu Ndar jàppale itam ni fële ci OMVS moom dañu daal di jaxase lépp loo xamante ni ma nga fa nekkoon euh, këyit nekkoon ñu daal di koy yàq waaye tamit lu jëm ci wàllu li nga xamante ni mooy këyit yi ñu daal di koy taal soxna naata Seynou ndax xam na ñu ci jàpp boobu ba léegi. waaw lim bi moom takku na lool tey jii suba sax tey jii am na koo xamante ni dafa ñëwoon di fay gaalam mais dañ ko mujjee teg loxo euh, démb itam euh, ba wax bi ñuy wax yow ñi am na ñu bari ñoo xamante ni jàpp nañ leen ci xibaar yi nga xamante ni mujj nañ ko jot lu mu tuuti tuuti dina egg fukki nit ak ñett yoo xamante ni tey ji de euh, foofee la ñu fanaan ci prison bu ndar. jërëjëf Ousseynou Diop nekk en direct foofee ca Ndar dinañ ci dellu si waat ci yeneen jotaayu xibaar ci nu mu gën a yaatoo dellu si fii ci Ndakaaru wax ci jàngoro jo feeñ fële ca Chine di coronavirus am na fukk ak ñetti étudiant yu sénégale yu nekk ca Wuhan muy diwaan ba yëf ya feeñee sax ñoom boobu ba léegi nag ñu ngi woote wàllu ne nañ leen indiwaat tey jile seen waajur ñoo jàkkaarloo taskatu xabaar yi ne ñoom jamono ji ñu bëgg ñu indilaatal leen seeni doom ñuy ñawlu bu baax a baax kàddu yi njiitu réew mi Macky Sall yëkkati altine gi su weesu dafa ne Sénégal noppeegul wala mënul sax indi xale yooyu la ñu ñibbisiwaat file Maguette Souaré Diallo ak Pape Sangone Mbaye teewee nañu seen conférence de presse. ay jooy le porte-parole bu collectif bu parent bu étudiant yi nekk ci Chine ci région bu Wuhan daal di ñëwaat moom ak ñamu àndal di ñaawlu kàddu yi njiitum réew bi daal di yëkkati. sunuy doomu réew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 moom mooy moom ci boppam mu wax ak xale yi. kilifa yi dañu war a agir collectif boobu jàpp na ni fukk ak ñetti étudiants yooyu sori seen famille ak seen dëkk fi ñu toll soxla nañu protection ak soutien te jot na gouvernement bi daal di si jug. ci jamono jooju ministère de la santé ànd ak secrétaire d'état bi ñu dénk sénégalais yi nekk bi biti réew ñoom tamit ñu ngi jàkkaarloog taskatu xabaar yi wax indi ay leeral ci jàngoroy coronavirus boobule ak étudiants li ñu sénégalais ci àdduna wërngal këpp bu amee jàngoro boobule ah, Mame Birame Diouf ah, maa ngi lay nuyu Mame Birame ah, Mame Birame lan leneen la ñu mën a jàpp ci conférence de presse boobu leen ndax wax nañu ci étudiants yi jamono ji ndax dañ leen di indi am déet ak ci jàngoro bi fan la ci réew mi toll ci moytandiku ko mu ngoog ko waxee rek muy leeral yu ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr jot a andi xam ne ni kon Euh, sant yàlla ndax Sénégal amul benn ka amul benn doomu it boo xam ne nii feebar bi euh, dal na ko mbirum andi it euh, suñu mbokk yooyu nga xam ne ñu ngi fa toll ci fukk ñett foofee ca waan ca Chine nga xam ne kon virus boobee di coronavirus mu ngi def ay musiba foofee waaye ci yeneen i réew kon mu xam ne rek ni kaddu yi nga xam ne sax président Macky Sall yëkkati na ko jëm ci mbirum rapatriement maanaam andi ñooñee ak comme ñu soppi kàddu yi président Macky ndax li leer ba leer mooy ak li président Macky wax li Abdoulaye Diouf Sarr kon xamle ko tey mooy ne Sénégal mënul amul euh, matuwaay ya nga xam ne ni mooy tax tey euh, roppalaan mbala roppalaan jóge fii nii dem jëli euh, ñooñu nga xam ñoo nekk ca waan ndax dispositif bi mu laaj loolu Sénégal amu ko kon muy lu leer loo xam ne rek wax na ko te nee na mun nañ rek kon teg kàddu président Macky ci mbir moomee kon mu doon ay précisions yoo xam def na ko waaye it nga xam mooy secrétaire d'État auprès du ministère des affaires étrangères euh, yor lépp lu jëm ci Sénégal de l'extérieur du muy SAR teewoon ci ndaje ba moom it euh, muy kon xam ne ni mu ngi jokkoo bu baax ak ña nga xam ni ñoo nekk fay coow waan ak seen i njaboot fii ci biir réew mi ba dem sax a am ak ñoom waxtaan ba àggee kon président Macky Sall seen i euh, bëgg-bëgg mu ngi xam ne ni ñooñee nekk foofee ca waan ñu leen di saytu am nañ assistance am nañ accompagnement am nañ soutien waaye ñu leen di xool bu baax ngir ñu mën a aar euh, feebar boobu nga xam mooy coronavirus bañ leen dal leneen loo xam ne te wax nañu ko rek mooy comme toll nii daal jël nañ benn mam bépp matuwaay fii ci biir réew mi kon dispositif am na fi gaa pour Sénégal kon mun a jàkkaarloog jàngoro joojee waaye daal andi leen loolu mun ta nekk waaye teewul ñu ngi leen bàyyi xel soxna naata ngir rek mbir mi daal dal am ci te te ñuy moytu di joxe ay kàddu yoo xam ne mun naa yee fitna xasi xelu nit ñi mbala sax di indi yeneen problème fii ci biir réew Mame Birame Diouf jërëjëf ñoo ko déggandoo ci conférence de presse bu ministère de la santé ak euh, secrétariat d'État bi ñu dénk sénégalais yi nekk biti réew ci wàllu woowu la ñuy des ndax sénégalais yu bari dañuy faral ñaare di ngir dafa wut ay marchandises mu di ay commerçant yu bëree bëri waaye jamono ji ñenn ca ñoom nag euh, demuñu fa dañoo soppi euh, seenu jëmukaay di dem lu ca mel ni Émirats arabes unis euh, Dubaï waaye boo demee ba ci ay transitaire ñoom li ñu gis mooy jàngoro boobule feeñ ca Chine amul benn gàllankoor ci seenub liggéey reportage Abib Faye Modou Diop. donte sax fii ci biir réew mi nemmeekooguñu fi benn yoon benn cas wu coronavirus bi mi ngi gën di law. ca Chine ba tax na itam jàpp na sax secteuru importation bi fii ci Sénégal kile ab jaaykat la di yëngatu ci wàllum matériel électronique waaye tey jii de xalaatatul benn yoon dem fële ca Chine di fa jëndee. dañ koy arrêté buñ ñu amoon destination Chine duñ ko defati dañuy dem du bàyyi jënd suñu marchandise ñëw. parce que li am Chine ak li am Dubaï boo dee xool marchandise bi benn la dinañ il faut ñu daw ko parce que loo xamante ne ñoom mënul faj waa Chine euh, mënul euh, ñoom chinois yi ñu ngi ciy am problème ñun sénégalais yi xanaa feebar bu duggee fii daf ñuy rey. ñun duñ def commande mais lu ci bëri dañuy demal suñu bopp xool bagage yi lii fa nekk ñu jëndal ko suñu bopp ñëw indi teg jaay. loolee wute na lool ak transitaires yi la ñuy dund ñoom ñi ne ñi ngi gën a wëy seen liggéey ak ñi nga xam ne ñoo di chinois yi secrétaire général bu mbootaay bi ngànk transitaires yi ak ñi ca port moom moomee ne virus bi. doonut benn yoon loo xamante ni dana gàllankoor seen liggéey. naa les trois quarts yi nga xam ne xam nañ le flux xam ni ñuy importé yàgg dem Chine ñoo jar ñuy dem. ils ont des clients ou bien c'est les femmes ou les hommes en général en tout cas c'est des personnes xam nañ ko donc su fekkee nag maintenant c'est le transport des personnes par voie aérienne ainsi de suite yooyu peut-être mun nga ne mun na impacter foofu. teewul itam ñu ñaax gouvernement bu Sénégal mu gën a xippi ay gëtam ngir moytandiku li ni mel. à notre faible connaissance on n'est pas médecin on n'est pas du secteur de la santé mais eh, mieux li may gën a farluloo gouvernement bi. moom moom nañu def ni tubaab yi def nañu jéem a jël ay précaution ñu xool frontière yi nu ñu ko mën a tëjee parce que feebar boobu très ñeent téeméer ak juróomi doomu aadama ñàkkagum nañ seen bakkan ndax virus gi dugg biir Chine lu toll ci ñaar fukkee junni ñoom ñi amee nañ doomu jàngoro bi lile mu ngi gën di woy di faat Sénégal moom jël na ay matuwaayam ba noppi ngir xool ana nan lay tënke bile jàngoro mu bañ fay yegsi. Euh, musiba ak baa yi da àdduna wërngal këpp yenn saay yi Sénégal fan yi ni ñu gis ci fitna yi nit ñi di faatu ak lu ni mel euh, kii di euh, njaboot bokk ci njabootu maam Abdoul Aziz da baax di ci àddu Serigne Sidi Ahmed Sy di doom ci moom moom naka faw réew mi ñu gën a bool àndandoo nekk benn di moytandiku lu ni mel mu ji kàddu ak nee na it état bu Sénégal na gëstu bu baax di wax saan yëngu mu génne ay xalaatam tey jii sëriñ bi wax na lu jëm ci wàllu jàmm ci réew mi na ci ñépp dal ndaw ñi de jox cër mag ñi ndax réew mi mën a tegu ci yoon te sax nag ba faw faw waaye surtout jàmm nañ góorgóorlu di wax jàmm te di ko wax te di ko jëf te di ko jëflante jàmbu ci la lépp xaj mbindaafoon bu ne soxla nga tàllal sa loxo sa mbokk mbindaafoon ngeen jàppante jàppalante yëkkateendoo tegandoo kon mbokk yi unité ci la lépp nekk seen mbokk mi ne woon fii di Cheikh Abdoul Aziz Dabakh mission yëpp loolu la woon tey jii ki fi toogal sëñ Abdou Aziz Sy baax nekk fii ci saaw di waajal gàmmuk Jaksaaw yëkkati nay kàddoom it jëmale ko nag ci njiitu réew mi ci jafe-jafe yi nga xamante ne dëkk bi day am na ko lu jëm ci wàllu yoon ci wàllu forage ci ay jumtukaay yoo xamante ne askan wi daañu ci mën a fajoo. bëgg nañu daal ku ñu gën a bi lu jëm wàllu docteur yi mën yokk forage bi fii depuis trois la woon te forage ñii te xam ni man xëy xëy ñi mu joxe na ci ay instruction ñu door ci senegal muy fexe ba diwoon yëpp naat rawatina Ndakaaru am projet de loi bu ñu nar a yóbbu ci kanamu conseil des ministres ak assemblée nationale taxawal benn brigade boo xam ne moom mooy topp liggéey bi ñu xool fa mu topp fa mu fa mu ca toll am na it programme bu bees nekk ab plan d'urgence ñu door ko démb fële ca place de l'indépendance lépp lu fa nekk di gàllankoor mbedd mi ay salteek lu ni mel ñu dindi ko ci teewaayu jëwriñ bi ñu ko dénk di Abdou Karim Fofana ànd na lu ëpp juróomi téeméer ci liggéey bi daal di mot Mohamed Samb Youssou Baro ci reportage. balayeuse jumtukaay bu am solo bi ñu jox UCG bi nga xamante ni jamono ji mu ngi ci liggéey bi ngir mun a seetal Ndakaaru plan d'urgence la ñu koy duppee mu nekk doxalin bu yees boo xam ni li ko tax a jóg moo di delloo ndakaaru xar kanam gu rafet gi ñu ko xamee woon. li nga xamante ne mooy euh, forum bale guddi waaye tamit bale di ko liggéey guddi ndaxte ku ne xam na ne bëccëg waxtu la woo xam ne dem beeg dikk bi day bëri commerce yi day bëri dem beeg dikk bi donc mën na am balayage yi mënuñu ko def ni mu waree. léegi rek euh, waa UCG ñu ngi maanaam liñ dajale ci euh, ñi ko war a def rek defe naa war nañ mat juróomi téeméer. il faut des moyens lourds il faut des moyens humains faut des moyens financiers tey gis nañu matériel bi nga xam ne ni génne nañ ko mais matériel boobu daf ñu war a accompagner. càmmoo gi ci anam bi ñuy tabaxee. peeg yi sekk place de l'indépendance bi ñu ngi koy waaja a amal. bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllum urbanisme ñi dëkkee ci taax yi yëpp jot nañu ab sommation. bind nañu bind préfet de Dakar ba tàmbali nañ ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci place de l'indépendance ñu ci bëri yónnee nañ leen sommation ne lañ nañ respecté texte boobu donc dina continuer bu ñu tontoo wala délai bi de pas dinañ xool naka lañ ci tax taxawee ak monsieur le préfet de Dakar ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, service yi ko yor muy mairie Dakar. dina am ab projet de loi bu ñuy jébbal pencum ndaw réew mi ngir mun a amal benn brigade spéciale boo xamante mooy wëyal liggéey bi lee projet de loi dañ koy circulariser dafa war a jaar ministère bu ne mu wax lu ciy xalaatam dafa am ay yeneen loi yu muy laal ak yu demee noonu donc ñu ngi euh, dem assemblée nationale. plan d'urgence bi nag a continuer damay ci monde bi ñu ëpp xaalis ci monde te jikko yi soppeekul du mën a dem. jëwriñ bi ñu wàllum urbanisme ànd ak UCG ak préfet de Dakar jot nañu ñu doxantu ci mbedd yaatu yi nga xamante ni si moo nekk fii ci Ndakaaru ngir mën a amal liñu ñu duppee plan d'urgence mu nekk gis-gis boo xamante ni li ko tax a jóg moo di dëggal Dakar ville propre. bu Fall si ginnaaw teg ñaari atu kaso ñetti weer yi mu nar ko moom nag moom continuer Fallou eh, fi xew damu ko wax ñun dañoo jàpp ni mbir mi mbirum politique la noonu lañ ko mais nag comme verdi génn na ñun ah, suñu avocat toog nañu waxtaan nañu appel waaye ñun xam nañu loolu ñu nga xam ni ñun ñu koy tuumaal defuñu ko ndaxte ñun boo ñëwee conseil municipal Mbour ñëpp xam nañ ma je suis majoritaire là-bas lépp lu ma bëgg dama koy voté te day ja ay quatre vingt dix pour cent la yenn saa sax cent pour cent léegi nag bon dañoo toll ci ay élection bon ko dégg nekk dañ ko jaaral fii jaaral fii jaaral mais noonu nous sommes sereins et puis nous respectons la décision de la. ci wàllu woowu la ñuy des kenn ku xam-xam màcc ci wàllu wàllum décentralisation li mu gis nag mooy Fallou laa ci boppam waratu la nekk mais ginnaaw daan ci code des collectivités bi euh, doxal euh, maire yeeg lu ni mel fii ci euh, réew mi mu gis ni am na maire yu bëri yoo xam ne dañuy jaawale suufa ba ñu leen dénk ak boo xamante ni waruñu koo joxe Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samba. bu ñetti weer yi kii di meeru Mbour nag dañ ko war a rek révoqué mu dëppoog li nga xam ne lii moom mooy loi bi tënk lii di code des collectivités territoriales ki gise noonu nag xam-xamam màcc lool ci wàllu décentralisation. mënuñu la dénk dëkk nga war a sàmm euh, alalu gox bi nga war a gérer seeni intérêt nga nekk fa di jël suuf si di si def loo si warul def loolu tax na euh, li xam si li yoon wax mooy article. quarante corps général des collectivités dañ la war a dax ñu gis ni si liñ ko tëjee moom El Hadj Fallou la yooyu ci la bokk li ñaan ñu génne ko si maire bi di seeni suuf ci kàddu yi kii di Amadou Sène Niang. maire yi kenn joxu leen suuf si ne ñoo ko moom kenn joxul collectivité locale suuf si ñoo ko moom suuf ko moom donc liñ leen jox mooy dañ leen dénk gestion utilisation yenn suuf si yi état bi moom même yi état bi moom mën nañ ko jot ñoom ci kaw ñu ñaan ko mais lu doon day nekk loo day am jeexital si askan wi day am njëriñ si askan wi bu dul loolu amul lenn lu leen mën a joxe joxe suuf mais li ñu seetlu mooy yu si ëpp boog da gis ni euh, dañu jàpp ni suuf si ñoo ko moom te lu nekk lañ lañ si def ñuy ñaan rek état bi ak corps de contrôle yi cour de compte ñoom ñëpp nga xamante ne dañuy saytu seeni jëf ñoom ak acte yu ñuy jël ñu saytu loolu bu baax. ki xam-xamam màcc ci wàllu décentralisation jàpp na nag tëju ki nga xam ne nii moom mooy maire Mbour dina doon nag exemple ci yeneen maire yi nga xam ne nii dañuy saax saaxee lii di suuf yu nekk ci seen i diwaan. ñu jàll ci xibaaru euh, biti réew xibaaru biti réew nag lii lëmbee euh, jamono ji muy coronavirus ca Chine foofee daanaka lim nit yi faature gën a takku euh, bés bu jot ci lim bu mujj jéggi na juróomi téeméer dinañ waxtaanee laata loolu nag Guinée Bissau foofee Umaro Sissoco Embaló jàpp nañu ni it moom moo jël raw gàddu gi ci élection boobule ginnaaw ba CEDEAO ne nañu wàññiwaat xob yi leeralu fat Bintou Conté commission électorale bi nga xam ne moom moo nekk fee ca Guinée Bissau joxaat na victoire ki nga xam ne moom moo di Umaro Sissoco Embaló ndax jàpp na ni gannaaw bi ñu vérifier li nga xam ne moom mooy procès verbaux second tour te ki nga xam ne moom mooy communauté économique des états de l' Afrique de l'Ouest laajte woon ko moom jàpp na ni jamono ji kii nga xam ne moom moo di njiitum réew mii di Guinée Bissau moom moo gagné ndax ay jiixi jaax amoon na fii depuis bi ñu defee élection second tour yi ki nga moo di naataangoom bi di Domingo Simon Pereira moom nee na moom moo gagné woon te bu sañoon ñu xoolaat li nga xam ne moom mooy élection yi lii ba tax ni CEDEAO laajte woon ñu defaat li nga xam ne moom mooy recompte des voix pour nag génne dëkk-dëkk bi jafe yi nga xam ne moom la nekk ca Burkina Faso cong yi bari na fa loolu ba tax ni askan wi ñu ci bëri dañoo daw ñu ñu leen di wax ay déplacés de guerre ñu dem ci li nga xam ne moom moo di ay camp ki nga xam ne moom moo di haut commissaire des Nations Unies jàpp ne nekk situation bi doy na waar lool lool ci li nga xam ne mooy askan wi nekk ci Burkina Faso ba tax ni dafa jaaxle di ñaan nag li nga xam ne moom moo di aide humanitaire ndax xool na ni fi mu toll nii il faut nag lu toll ci trois cent millions de dollars ñu mun ko mobiliser pour jàppale ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk situation bi nga xam ne urgence la laaj te faaw ñu jàppale leen ci jamono ji dëkkuwaay gi ñu nekk épidémie bi ñuy wax coronavirus ma ngay wéy di yokk ndax fi mu toll nii ci àllarba bi ñu nekk toll nii juróomi téeméeri nit ñàkk nañ ci seen bakken ñi ci ëpp nag ñi ci waan nga xam maladie bi fa jógee ñi ko xam ni nag moom yi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum wér gi yam ci commission provinciale de santé bi nag mu di province bi nga xam ne Wuhan fa la nekk nag moom jàpp na ni jamono ji ñi nga xam ne ñoom ñoo am virus bi dañoo infecté wu maanaam toll na ci trois mille cinquante six nouveaux cas yoo xam ne ñi xam jërëjëf Fatou euh, li xew dimanche bi la weesu ca stade Alassane Djigo bu pikin xeexoo diggante euh, supporter Casa ki euh, jiite club bu Casamance boobu leen nag di woo ca nekk na ànd ak dal moom si ak Bodian jàpp ni football bu Sénégal soxlawul loolu lay jamono ji dañuy dem ba Ziguinchor fekk ji fa Boubacar Dia si ak Lamine certificat de genre de mort wane na kii dañ ko dóor ba mu ba mu dee di jéggalu bu baax a baax loolee du élément Boubacar Diassi bi ñu war a déglu si ak Bodian mi jiite Casa Sport ak dal gi muy woote ci biir football bu Sénégal rawatina fitna ak yee woon dimanche ca stade Alassane jigo bu euh, Pikine dañuy wax ci football ba léegi centre bi di euh, Vicente del Bosque centre de football la te ñu taxawal ko ci atum 2012 ba léegi ca Parcelles Assainies am na nag benn partenaire bu euh, bees ci ko di euh, Limaamu Mbeng nee na loolee lu euh, baax la ñu mën a faa gën a yokk wàllum jumtukaay yi fexe ba ay talent yu bees ñu génne foofule dañ koy déglu ci micro Cheikh bu Diarra ak Ba projet bi ñu mës a am ñun ci football bi bu ñu ñëwee mooy am installation sportive centre de mënoo former ay Sadio Mané de demain sans de euh, nga am ay jumtukaay infrastructure yu baax donc ñun dañu bëgg former ay Sadio Mané de donc ñu ngi lancé appel di woo état Sénégal mu soutenir ñu ci projet bi. convention bi convention bi ñu signé mooy léegi ñun suñuy euh, par exemple ay ay ak ay population Parcelles Assainies yi nga xam ne dañu soxla liggéey ñeenti euh, fan ci euh, weeru euh, février bi ñu nekk lu toll ci ñaar fukki ak ñett ci ay combattant le Sénégal fas yéene yabal foofule wala sax dem nañ ba noppi ñoom bu ñu sukkandikoo ci responsable équipe nationale karaté fi ci Sénégal Fodé Ndaw mu cay dolli ni li ñu bëgg mooy fexe ba ay médailles yu bëree bëri ñu jëlee ko foofule ca Maroc ak qualifié wu ci Jeux olympiques yi ñuy amal ca Tokyo atum bi ñu nekk Cheikh Sadibou Diarra moom tamit. defal nañu ci ab gëstu euh, waaw dinañ ko déglu ci euh, yeneen jotaayu xibaar dañuy egseeg yéen ci ponk bu mujj yëglekaay yi xëyee ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf talaatay ndar ju tar ji am démb ca géet ndar la mboolem yéen kay xëy di waxtaane l'observateur jël xëtum la mu jagleel ko ngir di ñu ne tili la fa xewoon démb ubbil yéen kay bi moo li géet ndar yi ñoo doon ñaxtu ak di laaj ay autorisation de pêche ñu ne réewum gànnaar di Mauritanie da ko baaxee Sénégal ñu tollu téeméeri autorisation de pêche licence de pêche yooyu la Moly Guet Ndar yi doon laaj ba mu juróon fitna ju réy démbu ca dëkk ba fukki waxtu yi lëmmu ne nañu Moly Guet Ndar yi def nañu ko ca mbedd yee doon manifester dëkk ba tàngoon jër ñu lakk fay wata taal fay pëna agent Senelec ba fa nekk ñu yàqate ko caxat-caxate ko saax-saaxe ko mujj gi waa police ak waa gendarmerie ñoo booloo wàcc fa ñu yónnee leen ay renfort yu jugee Ndakaaru ak Kees loolee moo tax mujj gi ñu mën a dékku ñaxtuy nappkat yi askanu Guet wi nag journal bi nee nañu daanaka kenn ci ñoom desuloon ginnaaw ci ñaxtu yi muy góor di jigéen di mag di ndaw ñëpp wàccoon ca mbedd ya doon manifester bari na ñu ci jëlee gaañu gaañu bari na ñu ñu ca teg loxo la si ne kay nañu mardi de fa maanaam talaata ju doon jax-jaxeek sawara tàng jër moo amoon démb ca Guet Ndar fanweeri nit jëlee nañ cee gaañu gaañu lakk nañ fa benn watab 4 x taal fa pneu yu bari Senelec ba ci dëkk baak centre de documentation bu EMVS ba dañu ko salfaañe saax-saaxee ko caxat-caxatee ko li leen frege ñeente ba tax ñu génn di mani journal las nee nañu moo di ci seen gaalee daf ca am ñetti gaal defoo la ko tuddee xamal ñu ne mbiri licence de pêche moo tax mool yi dëkk ba salfaañi dëkk ba ba mu juróon ca dëkk ba fitna juréy les éco xëy ñu jukki li yàqu-yàqu yi ñaxtu yu jur démb ca Guet Ndar lakk nañu fa ñaari wata taal fa ay gaal yàqate agence Senelec ba fa nekk ak siège OMVS ba takk deer yu bari it jëlee nañ ciy gaañu-gaañu Le Quotidien nañu Ndar tàkk na démb mool ya ñoo doon laaj seen licence de pêche ba mu juró leen loon ñu wàcc ca mbedd ya takk deer ñëw di ñoom ba daanaka fukki policier ak lu teg jëlee nañ gaañu-gaañu bari na lu moole yàq ca ba bari na ay tasekat yu ca teg loxo la amoon démb ca Guet Ndar lu ca bari journal Le Quotidien xëy na ko photo tegal ñu ci xët mu njëkk la tribune dolli ñu ci ne ci alkaati yi jëlee gaañu-gaañu ca manifesté lu ëpp ci ñoom ay zemi lañu grand place lañu jàppante bu metti mu amoon démb ci diggante nappkati Guet Ndar yi ak takk der ya Sud Quotidien ne ko romb na jàppante intifada moo fa amoon li am démb ca Touba mu ngi ci xët mu njëkk Source A yëral journal bi ñaari xale yu toll ci juróomi at bokk benn bàyyi ñoo faatu ci lakk journal bi nañu am na beneen xale bu leen ñetteel waaye kooke bu dundee lakam dañoo miti ba jéggi dayoo dañu ko sax mujj rawale l'hôpital jéyee ji journal bi nañu ma nga xewee ca quartier guju sew ga ca Touba taala juk di nijaayu xale yi loolu ci lakk gi mi ngi nit li ci suur soit ni lakk gi demee ñu dem ci libération fekki fay xibaar yu ñeel dem si yàlla njuuba sekk di xale bu jigéen bi ñu fekkoon mu faatu ca arrêt sips ak juróom-benn fukki jam-jami paaka ak ñeent yéenekaay bi nañu ak faatoom moom njuuba sekk enquête bi ci waa police yi def feeñal na ne benn waay bu ñu naan Aliou Moto newoon faru njuuba sekk moom la ñu jàpp moo rey njuuba sekk li tax mu rey ko ci anam wu woowee moo di Njóoba Sekk dafa ëmboon ëmbub juróom-benn weer te Aliou Moto mënutoon a supporter keneen di ëmbal gelam li tax mu tiim ko jam ko juróom-benn fukki paaka ak ñeent moo di dafa bëggoon a am lu leer ci ne ëmb bi dana fa doxee yàqoo li tax ba enquête bi avancé bu baax journal Libé mi ngi ñuy wax ne waa division spéciale de lutte contre cybercriminalité ak liggéey bu mucc ay bi ñu ci def bokk na ci l'observateur nañu ñi ñuy tuumaal ci faatu Njóoba Sekk leen ñoom ñëpp ca parquet ba tuumay assassinat di boom doomu aadama lañ leen di toppee ñu topp ba tey journal l'observateur étudiant sénégalais xale yi bokk ci ñi ñu ber ca Wuhan ga ca Siin ndax jàngoroy coronavirus gi ñooñee la journal bi xëy seeti xool la ñuy dund ak nañu koy dundee madame Amar di yaay ci kenn ci étudiants sénégalais ya tagatim bi ca Wuhan ne waa l'Observateur bi ma déggee président de la République Macky Sall mu wax ak li mu wax ak ni mu ko waxee damaa mel ne ku ñu dóor balu fital ci xol Ibrahima Bakhoum ni ñu ci nekaay bi Macky Sall li mu wax bu dee donte sax noone la amee mënoon bi mu ci def dafa dëgër te it dafa yokk ak jaaxle yem ci xibaaru digg bëccëg gi 19h30 incha allah yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.